ñu ngi fi ñëw nag ci turu xalaat santé sunu coordinateur Cheikh Tidiane Ndiaye mu am benn message bu am importance bu ñu bëggoon lancé parce que dañu fi ñëw bu yàggul dara comme ñun fi lañ dëkk buñu feebaree fii la ñuy fajoo ñu ñëw fi gis ni euh, daraay euh, lal yi dafa amul ay dara ci kaw loolu Cheikh daal di convoqué benn réunion daal ni li mu bëggoon ci turu xalaat santé mooy ñu accompagner poste de santé bi ak ay dra de lii léegi nag dafa bëgg comme li muy gis bitim réew parce que Cheikh moom toujours ay waxam danaan Euh, ay exemple am mooy la ma gis bitim réew laa bëgg mu am sama koñ la ma gis bitim réew laa bëgg mu am bërëb sàngam moom laa bëgg mu am bërëb sàngam mu ni dafa bëgg ñu accompagner poste de santé bi ak trois euh, ak ak ay draps de de trois couleurs différentes ba pare daal ni euh, ku wax draps de wax machine à laver mu ni su indee draps de yi dana ko accompagner ak benn machine à laver mais actuellement ci daar daar mënut a toog di xaar ba dellu pour indi draps de yooyu ak ay machine à li mu bëgg mooy ñu compter nombre de lii yi nekk ci poste bi ñu équiper ko de draps en attendant raison yooyu moo tax mu dem jël draps de lits yi ngeen gis ma tiim ko ñëw ni da ko bëgg a indi jébbal ko biraa en attendant pour ñu tàmbalee ko ak biraa nuyoo ko ko xamal ko ne ko xalaat santé pare nañ pour def euh, pour defa ànd ak yow liggéey jàppale la ci li nga xamante ni mooy poste de sante gaan bi nga xam ne ñun fi la ñu dëkk ci kaw loolu nombre de lits yi nekk ci biir poste de bi ñun konteel nañ ko suñu bopp xam nañ ne temps de lii la jënd nañ nombre de drap bu ñu toll indil la ko euh, indi bi nag dañ la ko indi pour xamal la ni la du delloo dina ànd ak yow ci lu nu mel ci drap de lii trois couleurs différents ci li nga xamante ni nii moom mooy machine à laver ak ci yeneen matériel yoo xamante ni nii fas yéene nañ suñu su Cheikh delloo dana ko indi ak yow am na loo xam nag nettali ci làmmiñu borom lay dàqee mais comme communication bi laa lii rek ñu waxoon ci réunion bi ñu ne dañ ko doon wax léegi dara yaa ngi nii euh, ñuy jébbal ki nga xamante ni mooy biraas yi. wax dëgg yàlla hôpital bi nekk na boo xam nit dañ fiy ñëw te tamit li ngeen def ni lu baax la gis nga lii amul dara amul dara noonu la ci malade tëddee te xam nga loolu tamit nekkul lu baax daal kontaan nañ trop ci li ngeen indi. wax dëgg yàlla taxawaay bu baax la tamit ci askan bi ndax tamit dimbale nit ku amul doole wala dimbale koo xam ne dafa wéradi loolu moom wax dëgg yàlla ñu si sant yàlla bu baax lu baax la daal. dañ koy xanaa yàlla yokk taxawaay yokk mënoon bi ba lépp baax li ci sàkku rek yàlla dimbale leen remercier yéen ñi ne yéen ñëw tamit indi def acte bu noble bii di remercier grand Cheikh Tidiane mi ndax à moment mi ngi ñëw ci poste bi vérifier mi xool man dafay waxtaan ak ci bari ci post bi te yaakaar naa noonu la koy ak bira noonu la koy defee ak di remercier tamit bàjjenu gox yi fi teew ak personnel bi teew di wax ne lii nii acte bu noble la te lii la Mbàkke soxla mooy ay nit ñu responsable nit ñu xam li ñu war a def te di ko def Mbàkke soxlawul ay wax Mbàkke soxlawul ay coow mais dafa soxla ku ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi te moom noonu la koy doxalee da koy def ci ay dons médicament di ko def ay yeneen ak yeneen ak yeneen tey nag def ko ci ay dons drap de lit mu nekk loo xam ne lu poste bi soxla woon na à tout moment malade dañ ko fi réclamer waaye xam nga poste de santé dafa am lu muy doxee tey ñun buñu demee jël ay drap de lit ñëw teg ko fii amuñu possibilité pour fóot ko wala leneen wala leneen day indi mën a yokk sax infection yi wala contamination yi nekk ci biir bi moo tax loolu yëpp defuñu woon kon nag dañ koy sant ba mu amee initiative bi ak xalaat bu rafet bi ñëw defal na kër bu baaxee ca ca ca kilifa ga la muy bira si ku kuy gërëm na nga gërëm bira ndax man bi may ñëw bi bâtiment bi taxawu fi bira di ñu organiser ku fi am yar tey mbaa nga aw yoon bira la ndax moom dafa teey équipe am mu teeyloo leen bëggul ko ñàkk kersa ba ci man mii mag sax su ma yeboon ne sama doom la waaye daf may yaraale yaraal gi moom ci ay waxam laay dégg mu yaraale ma xam ne lii laa war a def li laa war a wax lii nag jaamu yàlla la yow Cheikh Diallo loo mënoon ren yàlla na ko mën déwéni déwén yéen lu ngeen mënoon na ko mën déwéni déwén yàlla may ñu wér ak gudd fan kon nag lii yow nga jël sa loxo dugal ko ci hôpital bi dugal ko ci Mbàkke yaa ngi dégg yàlla la yàlla jàppale jàppale équipe bi nga àndal a ñun tam dañuy jaamu yàlla rek kenn fayuñu salaire defuñu waaye dañuy xëy di liggéey tey li tax ngeen fekk ma fii sax dañoo xëyoon tey di ñàkk may rëkkati nit ñi bira sant ñu ko ñuy rëkkati nit ñi di ñëw euh, di di di di jox ci loolu lañ nekk. poste bi nag poste de référence la ndax poste bi bokk na si post bi nga xamante ne ñëpp mën nañ nangu ne après centre de santé bi moom la kon Cheikh tey lii mu def ak waa xalaat santé vraiment c'est la énième fois ñëw na fi ñëw fi ñëwati fi kon dañuy ñaan yàlla rek comme li mu wax. matériel yi mu fi indi heure bu fi ñëwee yàlla na gis ay avancement te gis moo tax mu sawar fi donc aussi di wax ni comme ni mu wax ci machine à laver yi et tant d'autres yàlla sunu borom may wér ak kàttan ba boo demee nga mottali ko ki médecin kii sànq infirmier bi dafa wax am solo lii askan wi ñoo war a doxal du état du maire yi askan wi ñoo war a jël seen alal ñëw di fi def kon lii nga def nii inspiration la pour les autres ñi si tamit non ka suivre ndax lu baax tamit ñëpp dañ ko war a tàcc applaudir ko Cheikh fi nga teg sa lox tànk daaw ak daaw jéeg ba ren de même que ICP bi musul changé musul soppeeku ak ñi ñu fi fekk parce que bu meloon neneen tamit nit ñi dañuy taxaw wax leen ne liggéeyu ñu wala naa ngi magaan kenn du fi sawar a def dara seen taxawaay moo tax ku am lu baax wala ku am ku mën lu baax ñoo def ko daaw indiwoon naa fi nit di di ko sage femme bi fii infirmière bi vacciné si la fi indiwoon ay dara kon li Cheikh def kooku defoon na ko kon bu Cheikh jëlee initiative ne da koy defaat dañ koy ànd parce que nag au delà des dara Cheikh climatisé woon nañ euh, maternité bi fii ICP bi nekk tey ventilo moonu tiim waroon ko climatiser parce que nag Mbàkke bu amee hôpital niveau un fii day doon centre de santé fii nit ñi fii li muy faj sax centre ba faju ko nit ñi sawaree fii sawaree ñu ko ci centre bi ñun ñëpp ñu dëkk fii gone yi am nañ accueil bu baax dinañ mel ni seen i bàjjan ak seen nijaay ak seen i rakk la ñuy faj sawar nañu suñ meloon neneen nit ñi dañuy ñëw duñu ko wax mu ñu ko waxee dañuy ñëw fii parce que ci comité bi la bokk comité bi la ñu bokk kon jafe-jafe bu yi am dañu koy wax ñoom tamit ñu gën a góorgóorlu gën a yaatal seen xol ànd ak ICP bi parce que nag wax dëgg fa yàlla lu jiit njaat moom